tabaski ren ji de mooy tabaski goo xam ne moo nar a doggali góorgóorlu fa yallaahu tribune yéene kaay naan tabaski goo xam ne andi na xel mu lënt ci góorgóorlu diggante xar mi lan war lekk ak yére yi nga xam ne tout tànk yi la ñuy sol yéene kaay bi de média bi naan góorgóorloo nar a sonn ren wala waxtu woo xam ne nag moom njëgum xar mi seer na ba maar day taali la mu war a àndal mu soos ko capp koo gën a seer lépp le regard yéene kaay nan kon tabaski boo xam ne mi ngi am ci contexte bu metti waay ci réewum Sénégal poos si fëq na xaalis amul dajaloo yéene kaay bi ne ma bul dem ma ne la tabaski boo xam ne politique laal na ko yàqu ko yaxee xool yi àndul xel tuñ-tuñal ay nit ci réew moo xam ne ay góor lañu defuñu dara di salfaañe seen àq ak seen i yelleef merloo ay nit yëngal xol yëg dënn yi tabaski ren ji yéenekaay bi dama Sénégal dootu ko fàtte mukk mukk mukk ci xol yoo xam ne ñu ngi julli waaye metti na ci dënn yoo xam ne ñoo ngi fas yéene julli waaye ñàkk na xar daal di cher lool la mu war a àndal ne ko dandu ma ñu ne déeta waaye bar na ci gox goxaan yoo xam ne ñu ngi fii ci Ndakaaru ma ne la ndox tokkuk ndox amuñu ko ña ngay yenu jamono goo xam ne soxna yaa koy dund ci warum ndox maar day taali booleeg xol yu tàng ci ñu ëpp ci soxna soo xam ne seeni doom ci boppam ñi ngi ci biir kaso bi bu seen doom nekkul seeni borom kër nekk na fa réew mi ko dijee naan Ousmane Sonko de ma nga naan ay gaayam ma ne la tabaski leen ci jàmm le point yéen kaay naan man tabaski bi daal ngeen saar bu Abdoulahad Sall moo cay def lu am solo ci njaayum xar mi nga xam ne tax na ñu bëri daal di seddu tribune yéen kaay ne ko déddu ñëpp de ren jii daal metti na ba jéggi dayoo ma ne la réew mi ñu ngi dund jaxan na ma goo xam ni maar day taali te tabaski gii moo nar a faagaagal góorgóorlu fayal laahu ñu ne déeta waay sàll ngaari lam tooro buur gere ne damay ndéwénal gaa yi daal ne leen aljuma du ngeen liggéey te daa ngeen fayeeku l'observateur naan kon ab ndéwénal la président Macky Sall daal di sédde askan wi Ousmane Sonko daal di leen di waar naan askan wi tabaski leen ci jàmm ndax tabaski dafa warteru sel la waaye bu nu tabaskee ba nuppi danaa woon président Macky Sall nan la ak naka la lii ko dajee nan man Ousmane Sonko ma ngay wax di dalal xelu nag ay militant ci moom wal fu ko dajee man Ousmane Sonko kay daf leen xamal ne seen xel dal yéen daal tabaski leen ci jàmm buñ tabaskee ba nuppi ma wan leen yoon wan yi jaar ngir faagaagal président Macky Sall yéen kaay bu wal fajiri bi naan man ca troisième mandat waaye tam ci jàpp yi nga xam ne ñu ngi koy jàpp doomu aadama yi di sénégalais moom Aïssata Tall Sall moo demoon ca parlement européen ba ngir fas fa yéene setal président Macky Sall wecc wecc waaye ca parlement boobee lan waase Sénégal ba mar day taal yi tribune yéen kaay naan kon kaay maa mën maa ëpp bu Tchèque ba dafa am ñetteeli mandat ci réew mi waa F24 naan bu ko bëggee sunu kanam lay daal taxaw du dialogue national na ba mu neex ko moom président Macky Sall mu xëy suba naan ñii ñooy bokk ñii duñ bokk te Sall nag fas bokk moom F24 naan kon ñoo lay baara yow Sall ngaari kay fii moom mandat doo ko fi sampe doo bokk Père Idrissa Diop ci direct news naan crise bi am ci réew mi mën ngeen ko ji ñëppam des président Macky Sall te ñaaw ëpp junniy milliards andi na ko ci réewum Sénégal turbine yéen a kaay naan ko déet junniy milliards yi ak téeméeri milliards yeeg juróom-ñaar téeméer ak yeneen yu niy lim fan la feeñ ci góorgóorloog Sénégal tey la Sénégal gën a métti tey la Sénégalais yi gën a xiif ndax ñu ngi wàññi lu toll ci benn million boo xam ne lekkuñu naanuñu tey la Sénégal am jafe-jafey ndox ci réew mi capital bi ma ni la ay fan a ngi nii amunu tokk ndox gunu root tey la Sénégal gën a ndóol tey la la ñuy jëndee gën a cher ci réew mi tey la la ñuy sol gën a manqué gën a cher ci réew mi tey la góorgóorlu gën a yëg ñàkk ci réewum Sénégal Sénégal tey la soxna yi gën a yëg ñàkk ak bu naqari ci réew mi xaalis boobee ñu ne dafa dugg ci réew mi fan la ko góorgóorlu yëg turbine naan yëgu ko fenn de bu ñu waxalee yàlla rek góorgóorlu yëgu ko fenn ndax Sénégal ku ne metti laa ne la da ngay nelaw yeewoo goo réew mi day daanaka jaxannama la cig mettit ci coono yoo xam ne askan waa ngi koy dund ci jafe-jafe yi métti yoo xam ne askan waa ngi koy dund lekkuñu ba suur naanuñu ba màndi rax ci dolli coono àddina dab leen fitna daal di nekk ci réew mi Sénégal mel ni ndumbelaan ñëw fi doole dip tooñ xaajaloo ci réew mi ndax wàllu politique l'observateur naan kon da ngaa demul ba Linguère waa ji dafa bëggoon amal ab réunion Pastef magam bi ne kon bi du am ci kër gi mu daal damm encham ñi nga xam ne ñooy ñibbi sigi coor ñu ngi dund jaxannama ci réew mi ndax fépp fu yoon ñu baare ko rax ci dolli ba toog dem dikk dematu fa l'essentiel naan leen lu ngeen am am doole xam leen ni tabaski ren ji Sénégal mosu koo dund ci métti tabaski ren ji li góorgóorloog askan wi di dund ma ni la Sénégal mosuñu koo dund ci ñàkk koo dund ci ndóol mosuñu koo dund ci métti mosuñu ku ne ngi sa ngéem jàpp ne ren ji bu baaxee yàlla turbine naan kon rax ci dolli ñuy tabaski di ngéem bu waale nag fas yéene songanteeg sàll ngaari lam tooro burgede ndax nag loo ci mënti déggit confrontation mënta ñàkk moom président Macky Sall def na ay calculam daal ci dialogue bi xool nam ko neexee moom sàll mu defee ko ni maanaam ñetteel bi mandat mu imposé lu ko élage da ci le point yéene kaay naan ko déet imposé wuñ ko de ñun ay militant am tribune yéen a foon dana ko wax wala président Macky Sall bés bu ne candidat la jëtteel bi yoon ci réew mi mënta sedd ci mim réew xeex rek xam nga président Macky Sall dafa wooteeb dialogue am ci dialogue boobee moom Sall ngaari lam tooro buur mu daal di fay tër Ousmane Sonko def ko nagub sarax bi xam nga dialogue bi dialogue bi laane la troisième mandat Ousmane Sonko du bokk moo ko tax a jóg tribune yéen a kaay na sacrifié son Ousmane Sonko waaye tër ga ñu tër Sonko du luy jàlle noonu de Walfadjri mel ni ku naan kon dangaa xamul kii di kii di Karim Meïssa Wade ba ci président Macky Sall sax laa ni la ci élection présidentielle yi ci sursis la ñu nekk seenu bokk yàlla la wóor tribune yéen a kaay na taale ko président Macky Sall bu bëgg ñetteel bi mandat daal di tiim Khalifa muy ree Ousmane Sonko di ko ree Bougane Gueye Dany di ko joxoñ baaraam mel ni ku naan kon attention président Mimi Touré ngay ree ànd ca Karim Meïssa Wade ca wet ga tribune yéen a kaay naan lii Sall ngaari bu ko bëggee yàq du ko jig ndax koy song naan kon du fi amee yéen kaay bi média bi mel ni ku naan leen xanaa du ngeen xool Sall day bëgg-bëggam ci réew mii ma ne la bés bu matee Ousmane Sonko du bokk te moom candidat lay doon askan wi nag ñu ngoogeeg seen cëggal guy nan bàyyi nag président Macky Sall mu doxal déroulé su déroulé réew mi danañ àgg foo xam ne dana métti ci ñun wala xam nga dañuy jooy tabaski goo xam ni métti na di jooy réew moo xam ne ndóol na ba egg ca lool ga di jooy askan woo xam ne dundatuñu daanaka askanu Sénégal boo xam ne ña nga naan daanaka benn million ci ndóol la ñuy dund lekk lekkuñu naanuñu yéene kaay bi naan man nan bàyyi sàll mu déroulé da ngeen dund lu raw loolu fuuf fuuf tribune naan booba buggaan géy danee nga naan jox leen ma réew mi ndax nag président Macky Sall mi koy salfaañe suñuy àq ak yelleef sàll daal di tël ku wax lu ko neexul yan ngi ci kaso bi ku xalaatee sax fu ko neexul moom président Macky Sall amaana yaa nga jëm rëbës buggaan géy dani ne moo tax ma sol samay dàll di ko wili pande nag ci kilifa diine yi nga xam ne ñi ci réew mi yëpp démb maa nga woon kër grand sëriñ bu ndakaaru Pape Ibrahima Diagne fekk fa nag ay kilifa ak lébu yoo xam naa leen la nga xam ne senegal moom lay dund ci jafe-jafe ak jaxaanam ak nga xam ne Sall teg nañu ko njiital gëm sa bopp naan kilifa diina yi président Macky Sall li mu teg askan wi Sénégal attanu ko wala moom grand sëriñ Pape Ibrahima Diagne naan koon doxalal seet si gii nga ma seet si bëgg naa ci ndax nag dëgg-dëgg wane nga ni ku bëgg sam réew nga tak jaar-jaar nit mënu koo taxal fii nga yegg si tay yaa si andi sa bopp sos nga ay liggéey ci réew mi ay ndaw di ci liggéey jébbal ndaw yi ay xëy kon koo xëy jox ndéki boo ko diggee añ war na la gëm di la xamal ni suñu diggante weesu na ab xaritoo maa ñaanal ci li nga bëgg ci boppum réew mi nga am ko ñoo ngi lay suivre te am na ñu gëm-gëm ne bés boo jotee réew mi Sénégal daal dina wuuteeg bu tey wi lanket ko di ñeen naan Touba daal bëgg na Sénégal bu waroo ak bu nii Serigne Mountakha Mbacké daal di le nii boo demee ba itali laa ñu la capitale ba Rome la tudd ca capitale boobee dafa am kilifa diine goo xam ne dafa jiite ab état foofee bàyyi ko gël gu yam kilifa diine googee lan la ëppalee Serigne Touba ba Serigne Touba mënta am titre foncier fii ci réew mi moom Serigne Mountakha ne loolee la président Macky Sall def ko tribune mel ni ku naan kon président Macky Sall day fi mu ne lu dul na li adversaire talu ko l'observateur naan kon na gestu ñi nga xam ne ay sénégalais la ñu nekk ca màkkatal mu karam di fi dund jaxannama goo xam ni maar day taali yéeni kaay bi naan kon ñett ci sénégalais nee ñu faatu nañ ca gannaaw loolu yow président Macky sàll yëgal ni senegale yaa ngay dund lu métti ca màkkatal mu karam ay téeméeri téeméeri sénégalais yoo xam ne dañu doon wëndeelu ci naaj wu tàng wu min nawi ni ki démb amuñu ku leen teg loxo amuñu ku leen orienté amuñu kenn koo ñoo xam ne mënees naa wax ak ñoom añ ba mu jotee ma ni la ci barget lan jël benn ngëbub ceeb jox leen reer woo xam ni ba onze heures ci guddi mën cee jot mag ña deew ak xiif ñay lox di lox lof su naan maan voyagiste privé yaa ngay naqarlu ujaaju sénégalais di naqarlu ñàkk taxaw goo xam ne commission bañ leen booleel bu délégation bi taxawu na leen délégation bi nag daw ay responsabilité am réer mër ujaaj yi ujaaj sénégalais ca màkk di dund maar day taali réew mi mel ni ndumbelaan mu mel ni sénégal nag néew fi doole sax dafa mujj doon tooñ fàttaliku leen coowal junne junni ak fanweer ak juróom benn kilogramme ko cocaïne yi nga xam ne jàppoon nañ ko fi yéen kaay bi naan man fukki nit ak ñaar lañ ci yóbbu woon ca chambre criminelle ya ña nga xam ne ay nasaraan lañ te woon di ay allemand ak italien ñoom daal bàyyi nañ leen ñu ñibbi ndànk bal tàkkul sagar xeeñul génne nañu leen coow la nag mooy sénégalais yi nga xam ne taxandoo woon nañ leen ci mbir ma ak ñoom ñoom ñoo des ci kaso bi réewum Sénégal di ndumbelaan néew fi doole di tooñ vox boobu di naan booba Sall ngay waajal boppam matériel bu l'armée bi gannaaw bañ ko renforcer nit yi ci boppam andiwaat nañ leen ña xam ne summi woon nañu leen l'armée bi neen dañ leen di delloo si waat ci seenu giir lan la président Macky Sall di waajal ci réew mi libération yéen kaay naan kon ak lu mu mën a waajal na xam ni day réew mi ñaawteef yaa ngi koy yàq yaxeet fii ci cité si presse ni ki démb benn jakartamaan moo sànni benn mbuus ci benn poubelle gannaaw ban yëree mbuus mi xool ko te lañ gis ni kat waa ji ab liir la fa sànni ban saytoo la ñu xam ne liir bi dafa judd ñu faat ko ba pare daal di ko def ci mbuus daal sànni ca poubelle ba ak lu mën a mbokk yi ñuy ñaan